waa Sénégal nuyu nañ leen euh, fañ leen daan nuyoo di jégalu bu baax nag ci retard bi nga xam ne am na ci émission bi di leen bëggee saa bu nekk euh, di kontaan ci yéen di leen wax ne dañoo kontaan lool ci ànd ak tànn bi ngeen ñu tànn euh, télévision Futur Média ni leen koy defalee jeudi bu jot waxtu wi ñu mën a toog waxtaan waaye nag li ma leen ko waxee rek après midi xam nga nag waajal tabaski la ñu wax kon fu waay mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu waaye tey ji dañ leen a benn bëgg a bégal bégal boo xam ne day ànd ak ay bagage yu baax a baax a baax yoo xam ne di ngeen ko mën a jëriñoo ci tabaski bi nag euh, télé ko tuddee euh, te nag bi ñu tàmbalee ba léegi ci loolu la ñu nekk waaye tey dañoo bëgg mu neex lool ñu jël invité yeeg yëpp teg fële andil leen benn après midi bu neex benn euh, ngoon goo xam ne dootu leen ko fàtte dina des ci xel yi ndax nag fi mu nekk nii dëkk bi tar na tar goo xamante ne li nit ñi soxla rek lañ leen di defal ñuy am mbégte nag di àndandoo ak yéen comme ni ñu koy defee jeudi bu nekk mooy les rendez-vous du ñu leen di andil ay bagages yoo xam ne tey jii laataa ñuy jublu ci lenn di leen bégal di leen tegal ay vidéo dañ leen koy piis ndax piis nag moom ku ne xam na ko gaa yaa ngi wut gesner ñi ngi wut perlage façon bu nekk am na jigéenu Sénégal mën a sañse lool bëgg lu baax euh, télévision bi du Futur Média nag di doxee liñ ne seetu askan bi xam loolu ba tax na nag euh, muy def nag mission wu service public ba noppi itam nag bëgg a bëggal waa Sénégal ndax moo waa Sénégal a far muy fii muy bitim réew euh, numéro yi day affiché au bas de votre écran ngeen mën a woote participer ci émission bi mën am yi nga ne moom ngeen fi gis ay la ay liaas la am na cinquante mille am na cent mille am na cent cinquante mille lu ngeen bëgg ci xaalis rek ñun ñooy neexal seen tabaski te tabaski bi tey fii laa koy neexalee kon gaaw leen yëkkati seen téléphone woote mun a bokk ci yii mën cee am ba noppi itam euh, li ma leen di wax rek mooy ci ngoon gi wax naa leen tey dama leen bëgg a bégal dama leen di jox ñetti enveloppe benn bu nekk def juróomi junni ci tabaski gii rek ak fi réew mi toll benn bu nekk vingt cinq mille ba noppi tam dinaa maye saako soble dinaa maye également saako pombiteer maye ay butéelu diwlin maye nag ay tissu tissu yu am maanaa du tissu como como tissu yoo xam ne sant yàlla boutique mi nga xam ne moo yor tissu yu baax yi moom moo ko fi joxle jagleel ñu fas leen ko jox yéen ñëpp tey jii may leen ko képp ku woote rek am nga ci part may la tissu may la loo duggee ci waañ bi ba noppi itam jox la enveloppe yu duun fi toll wax naa leen ko euh, <laughs> bi bu ma kenn woo sama portable nag woote leen direct ci numéro yi euh, ñuy gërëm bu baax sant yàlla boutique nag euh, nga xam ne 77 euh, la seen numéro 906 28 95 waaye li gën a am solo nag liñ naan li jeeg ji bëgg muy nag or nga xam ne nag waajal tabaski mënoo koo def te boo sañsee ba pare li nga xam ne moo koy mottali moo di parure parure or bu am maanaa bii lañ leen tegal bëgg ngeen gañe ko nag nii nii te li li la koy may nag mooy nga woote xam nga waajaay tabaski ñu indi la li nga xam ne moom moo di oor takkaay bu am maanaa mu nekk parure am jaaro baaraam ah am caq bu ne put ba noppi tam ànd ak li nga xam ne moom moo di ay jaaro nopp mu nekk ensemble te or nag mooy valeur lu am rek loo am ci soxla boo ko fëggee mu jox la ko moom lañ leen di may léegi léegi nii loolu yëpp nag jëm ci li nga xam ne moom moo di waajtaayu tabaski ni ko télévision Futur Média di defee am na nag li nga xam ne moom mooy ay xar am na itam li nga xam ne moom moo di ay piis comme ni ma ko waxee léegi saako soble saako pombiteer fi réew mi toll ñu teggil la ko nga mun koo booleeg sa waaj ju yàpp loolu dafay am maanaa tissu haut de gamme lay doon nag du tissu como como wax naa leen ko ay gesner ay cuub ay li nga xam ne moom moo di perlage ay yooyu yëpp nag dañ leen koo fas yéene may ah euh, piis yaa ngi nii waaw gaaw leen na bar na téléphone yi ibbi tey nee naa leen spécial waajal tabaski la basin yii yëpp nag yii laay maye tey ji tey nee naa leen spécial la am na kenn ku dugg ku dugg léegi ak perlage bi ku dugg allo apu dafa am ku dugg allo waa allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si na nga def noo tudd ak fooy wootee ça maam Kumba Cissé Medina laay wootee yaa ngi dëkk Medina waaw maam Kumba yaa ngi waajal tabaski bi dégguma. ma ne ndax yaa ngi waajal tabaski bi. déggu bu déggoo bu baax ma ne ndax yaa ngi waajal tabaski bi. waaw maa waajal ndànk-ndànk rek. ah lu tax ndànk-ndànk def ko bu baax bu baax nag Sénégal la ñu nekk te TFM mi ngi fi. Ah, lu tax ndànk-ndànk lan lañ lay jox bu ko ah, defee. waaj ko bu baax moo tax ma woote nii. su <laughs> cuub baax na. sama cuub baax na lii nag yaayu kii ma ko jox waaw waaw sama yaay jee ma may cuub bi yëkkati ko rek jox ma ko def palmaan ak baxa yaayu kànku caam rek moo ma defal nii euh, léegi mhm. ngir nag yëf yi neex bu baax parce que sama nee ndax yaa ngi waajal tabaski nga ne ma yaa ngi koy waaj ndànk-ndànk ngir nga waajal ko bu baax ngir sa tabaski neex yii ñu la fi tegal bu la ci gën a yitteel bu waaw xaalis a ngi fi am nga xaalis am nga tamit euh, basin yoo xam ne sant yàlla ñoom ñoo ko joxe perlage am na fi euh, gesner am na pariru or am na euh, ñetti enveloppe am na fi yoo xam ne dama leen koy jagle enveloppe juróomi junni waaye itam am nga ñetti saako soble yoo xam ne dañ koy joxe am na itam saako pombiteer am na it butéelu diwlin yooyu yëpp nag dañ la koy jox enveloppe ngi fi xaalis a ngi fi piis a ngi fi bu la ci gënal. léegi or bi moom mën naa kaa am. <laughs> ban bii nii. bi jeeg ji bëgg. ah bi jeeg bi bëgg. ah or baa ngi nii de. ah. or bi or bi nag xam nga nan la ñuy def. Ah, ba pare tamit dafa am benn tirage tirage boo xamante ne bii dañ koy def un million lay doon un million de francs. ah waaye du yaa ngi nii dugg nga. <laughs> ma ne ko du yaa ngi ni dugg nga. waaw léegi xam naa ne tissu bi poussière oh, ah, yow nag yow nag ku miin yëf yi nga. <laughs> léegi danga jéem ah, ma ko ñawloo rek ma li benn gesner. Ah, lu ma ak loo ko ñawloo. waaw léegi. ban ban couleur nga bëgg ci gesner bi. <laughs> boo ci taamu. am na yii yëpp am nga choix sant yàlla butik nii lañu def am nga tamit euh, rouge rouge bi yii yëpp am na fi am nga brodé aussi brodé bu bleu bu toog sax waaw yii yëpp am na fi bu la gënal ah ban nga taamu. bu rafet bu jigéenee rek. bu rafet bu jigéen. waaw. waa jeex na léegi bu ñu coupé ñu jël la si suuf. <laughs> déggal lii nag. <laughs> waaw waaw yow bul coupé rek loo bëgg yàlla nay jàmm suñu xarit bi wootee depuis médina def leen ni moom woote participer daal di mën a gagné ay loo enveloppe yaa ngi ni di dàqante ku dugg léegi ñu jox la enveloppe bu duun nga mën a waaj li nga xam ne euh, moom mooy sa tabaski jox la itam li nga xam ne mooy tissu waaye nag bu leen fàtte euh, daj dëpp gi muy li gën a am muy li nga xam ne moom moo di tirage bi ñuy def yëkkati 1 million de francs jox la ko pariru or bi tam mi ngi tege loolu yëpp nag continuer leen di woote woote bi du émission rek même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité woote euh, ngir bokk li nga xam ne moom moo di tirage lii la leen groupe Futurs Médias defal euh, ci tabaski bi waajal tabaski en attendant beneen téléspectateur apulaay ñu dem xool benn vidéo ñëwaat yow man dama laa dama laa xam nga ni yaa ma reeni xool ay leen waa Ibra Naajo ngi noonu lii mooy Sénégal ak seen ay créativité euh, am inspiration génn lu original moom Ibra Naajo Naajo nag la dupp euh, dàkkantalee boppam man nag loolu yëm na ma xaw ma pour lan Naajo bi xam naa danañ ko ko musa woo laaj ko waaye gis ngeen ko moom lañ doon xool léegi à l'instant ba tey rek ñuy def émission spéciale waajal euh, tabaski sur la TFM fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi woote leen lépp lu ngeen fi gis rek yéen lañ ko jagleel di wax nag ni sant yàlla boutique moom moo joxe tissu am maanaa yi du <laughs> yu ndaw yi bojo bojo yi koy wax perlage yu am base yi nga xam ne boo ci defee tay base rek da ngay dégg jàmm yeneen yi mu ngi nii ay tunique tunique yi yëpp bu ngeen wootee ku dugg léegi rek <laughs> waaw parfois la nga koy wutal jabaram waaye loolu jëlee ko fi lii wootee ko fii jëlee ah, ba noppi tamit ah, gesner yaa ngi nii di tege xam nga gesner mi ngi nii bazin riche jóge Allemagne mbaa Autriche moom la sant yàlla boutique def rouge baa ngi fi vert baa ngi fi gris baa ngi fi ba noppi itam li gën a am maanaam mooy or bi parure or bi nga xamante ne tam dañ leen ko jagleel loolu yëpp ci émission spéciale waajal tabaski ak itam li nga xam ne moom moo di enveloppe yi ñu leen di jagleel waaye yemuñu ci ay enveloppe am na xar également ndax boo ne tabaski rek da nga naan xar ndax kenn mënut a tabaski sans xar ba tax na nag télévision Futurs Médias comprendre loolu euh, nekk mission au service public comme ni ma leen ko waxee euh, di jéem euh, def li nga xam ne mooy dab seen bànneex naa ne ngi ci boobu léegi li lay teree jot ci lii nag lenn rek la composé numéro yi rek daal di ne allo ñu ne la allo nga daal di jot am sa enveloppe vingt cinq mille wala nga am sa euh, tissu wala nga am sa li nga xam ne moom moo di euh, saako soble saako pombiteer wala diwlin lépp lu jëm ci wàllu tabaski ji daal fii lañ leen koy joxee euh, kon nag app ñu xool ku nekk ci ligne bi rek ñu jëm koo may ndax ñun suñu yaram dafa tàng tey yii fi nekk yëpp dañ koy maye ndax bëgg rek seen tabaski neex ana ku nekk ci bunt bi ku dugg allo. allo. waaleykum salaam. sëñ bi na nga def noo tudd ak foo yootee. mais je parle pas ah oui vous parlez quelle langue. le français. le français vous appelez comment. allô. chaque jour nag ma am ci numéro yu benn allô. oui oui je parle pas euh, wolof je parle français. voilà vous appelez comment. Euh, Boubacar Diallo. Boubacar Diallo. Et vous habitez où? Vous nous appelez d'où? Euh, Dakar Plateau. Dakar Plateau. alors vous voulez gagner quoi on vous propose des tissus également des enveloppes euh, d'argent il y a également une parure en or. Euh, euh, d'abord la dernière fois j'avais appelé sur mon numéro. Mm -hmm. l'antenne. Oui. Ils m'avaient qu'ils allaient m'appeler, mais c'est pas grave. tout d'abord, je remercie votre émission. Je remercie très bien votre émission de ce que vous faites pour la population sénégalaise. Mhm. Euh, c'est pas parce que je veux de moutons que ah, euh, vous appelle. Ah, ce que vous me proposez. Euh, pour ce que je... ça fait vous êtes euh, un fidèle téléspectateur de télévision Futur Média et également vous écoutez la radio les chaînes de radio qui sont disponibles pour le groupe Futur Média. Alors je vous offre une enveloppe de 25 000 francs. Allô? Allô Boubacar. Oui, oui, je, oui, je, je pour la Tabaski. Pas de problème, ça me fera euh, euh, la communication, on vous prend. Et euh, de gagner une enveloppe de 25 la part du groupe Futur Média. Euh, ba tey rek ngeen di wootee fu nekk gis ngeen ko toute nationalité con euh, confondue euh, ñëpp di woote ndax télévision Futur Média du télévision Sénégal rek télévision àdduna la dafa wër àdduna wërngal këpp ba tax na tey jii ñu leen di defal émission spéciale ngir neexal seen ngoon duñ leen tegal ay vidéo rek nee naa la tey dañoo pousse invité yëpp waaye li tax ñu toog fi mooy dañoo bëgg rek bëggal leen ngir seen tabaski neex ndax xam nañ fi réew mi toll ak ni yëf yi demee moo tax nag ñu di leen soulager andi leen pombiteer andi leen soble andi leen ay piis andi leen xaalis xaalis ku wootee rek boo duggee am na loo xam ne dañ la koy jox ana keneen ki ne ci ligne bi ku bëgg tis tissu ma may la ku bëgg parure or ma jox la ndax tey ji sama yaram dafa tàng allo ana keneen ku ne ci ligne bi apulaay dugalal keneen ñu jël ko may ko ci bagage yi xaalis bi nag xam naa ni yitteel nañu bëri enveloppe yaa ngi fi xaalis bi demagul benn rek la ñu mayeegum lépp a ngi fi à disposition pour te tabaski baa ngi approché am na keneen ku nekk en ligne allo. waaw naa def maa ngi fii maa ngi sant yàlla bu baax soxna si na nga def. maa fii maa ngi sant ah, noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Fat Bintu Boja. Fat Bintu. Fat Bintu Boja. Fat Bintu fooy woote jàmm gën. jàmm gën ana waa jàmm gën. ah. maa ngi sant sunu borom bu wér ana waa jàmm gën naka tabaski bi nag yaa ngi koy waajal wala ñun de waajal tabaski la ñu wax. bu baax ñu yaa ngi koy waajal bu baax. ana piis bi ñaw bi pare na. na amaguñu. commande xar mi pare na lépp ñëw na. déedéet amaguñu moo tax ñu <laughs> yëkkatil baat bi tuuti Fatou bu ku dégg sa baat bi xam ne yëf yi pareegul. yëkkati ko tuuti ñu dégg la. waaw pareegul de. pareegul ana ñaw bi pareegul jënd nga piis. déedéet pareegul. xale yi ñawlu nañu. déedéet. dara dara sotteegu. dara sotteegu ah Fatou Bintou am na lu sotti nag arrêté li ngay wax. <laughs> wax dëgg yàlla. dara dara dara. dara. <laughs> xanaa moo waral woote bi. xanaa xanaa baax yi. nga ni léegi lan nga taamu nag ma jox la piis kon. ah loo ma jox lu ma la jox baax na. boo ma joxoon ci xaalis moo ma gën. moo la gënal. waaw waa jeex na. dañ lay jox may nañ la vingt cinq mille léegi nii. ak saako soble saako pombiteer. waaw kay. xanaa neex na. neex na torop. ah. neex na torop looy waxal groupe Futur Media. ah groupe Futur Media moom ca kaw ca kanam man moom rek laay seetaan. waaye nuyul ma waa jàmm gël ñëpp ne leen ñu damm ko foofu noonu fréquence bi di seetaan télévision Futur Media kese. <laughs> jërëjëf def leen ni moom woote leen apu ana keneen ku nekk ci ligne bi xaalis baa ngi tege te yéen ko moom yéen lay xaar parure baa ngi tege waaye itam bu leen fàtte euh, tirage u 1 million bi nga xamante ne dafay am juste avant tabaski bi ak parure or bii ñu tege or li jeeg ji bëgg nga xam ne nag kenn bañu ko or rek <laughs> na keneen dugg ñu jël ko alo ba pare nag dafa mel ni jigéen ñi rek ñooy dugg di woote jigéenu Sénégal ay jàmbaar ngeen bëgg seen njaboot di daw guddeeg bëccëg boo xëyee suba teel sa yaram day daw 4 heures du matin 3 heures du matin jigéen ñi jaay jën yenu ay paan nekk ñu am jom nangu ñoo tëdd nangu ñoo toog fi ñu toll nii économie dëkk bi ci boppam jigéen ñee ko téye ñooy lijjanti kër yi boole koog di ko neexal kon jigéen ñi lañ fi toogal woote leen ñu jox leen ci yu baax yi ndax mérité ngeen ko allo ñu jël keneen ku nekk ci ligne bi maa ngi nii rek ci loo ne wax naa leen jigéen ñi rek ay woote te ñoom laa bëgg a may sax oh c'est dommage dem na euh, ñu xaaraat ko ba tey bu leen taay woote leen ci 88 628 99 80 88 628 99 80 ngeen mën a am li nga xam ne moom moo di lii ci émission bi ndax tey spécial waajal tabaski ndax booy jëm ci bés di ko dëgmal da nga koy waajal te niñ koy waajalee du lenn lu dul groupe Futurs Médias àndandoog yéen indil la or indil la piis andil la xaalis boole la ci soble boole la pombiteer ak diwlin ay ca ñu jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum. allo. waaw na nga def soxna si. waaw képp ça va. ça maa ngi sant bu baax noo tudd ak fooy wootee. ah dafa mel ne coupé na ñu seet beneen téléspectateur bu nekk en ligne allo fi mu toll nii ligne bi dafa saturé ak fi réew mi toll ci tàngaay ak ci banque allo allo allo waa Apulaay waa dafa mel ni ligne bi dafa saturé ñëpp bëgg ci bagage yi moo tax. ayca leen woote leen bu leen taay yéen a moom yii fi tege aputee ñoo dem xooli beneen vidéo ñu régler téléphone bi ñëwaat ñu dem xool beneen vidéo mais bu leen bouger continuer leen daal di woote te wax naa leen ne leen avant émission bi di waaw koy tegal ma waale bi noonu la man li su ma gisee yaa ngi saale

Balago Seck sama ex doom la moom ndax sama doom la woon waaye maa ko waxee fii xam naa mi koy dégg sama ex la sama ex doom a ngi noonu xale bi nga xamante ne nag euh, mooy way way yu neex yii Sénégal bëgg ko àdduna bëgg ko moom lañ doon xool léegi à l'instant euh, muy wax rek lest love line moom mi ngi ci ay love rek di way kon Waly Balago sekk moom ngeen doon xool à l'instant mel na ne am na keneen ku dugg allo allo laay lay la laa bee saturé ak fi nit ñi bëgg ci yu baax yi ñëpp a bëgg a dugg waaye yéen ñëpp di ngeen dugg tey jii bu ko defee nag ñu mun leen a jox apulaay ñu officiel yeneen numéro yi nga xam ne mooy numéro serveur yi ma mun koo euh, Euh, wax euh, gars yi ñu gën a mën a woote parce que ñu ngi ci ligne bi mu saturé ñu ngi jéggalu bu baax spécial waajal tabaski bu émission bi jeexee ak ni muy dawee nii it euh, kenn ku ci woote rek am nga chance ba tey bokk ci tirage bi nga xam ne 1 million de francs CFA lay doon ngeen mën a bokk ci li nga xam ne mooy tirage bi li nga xam ne mooy jëm ci tabaski amul lenn loo xam ne télévision Futurs Médias bàyyi na ko bokk na ci li xam ne moom ngay booleek sam xar mu di sobleeg pombiteer ak bagage yu sew yooyu yëpp dañ la koy may fii léegi boo duggee woote dinañ la may également tissu yoo xam ne euh, sant yàlla boutique nga xam ne nag euh, seen numéro téléphone moo di 77 906 28 95 ñoom itam nag am tissu am maanaa yi nga xam ne dañ koy maye rek jaglee ko ci tabaski bi ku ci bu ci dàqale sa morom rek nga ni bii la gis ngeen fayet bu baax bi gis ngeen brodé bu rose bi lii yëpp ku ne aloo rek da nga koy am léegi léegi nii ñu may la ko jagleel la ko laataa émission bi di jeex ñuy tàggoo a am maanaa euh, na ci tam tabaski nit ñi dañuy varier ndax nag euh, Getzner a ngi fi basin riche jóge Allemagne mbaa Autriche loolu yëpp sant yàlla boutique nga ko mën a amee euh, yemuñu foofu dañuy yëkkati tam li nga xam ne moom moo di parure or mu bokk ci tirage yu 1 million euh, tey jii tey avant tirage bi di ñëw am nga possibilité boo duggee léegi ak fi réew mi toll rek ñu yëkkati li nga xam ne moo di enveloppe bu ne du bu ne muut jox la ko nga daal di mën a waajal jëm fi nga xam ne moo di tabaski incha allah yàlla jàppale ñu ñu egg fa te ñëpp am tabaski bu neex ndax wax naa ko léegi bi ñu tàmbalee ba léegi rek ay jigéen ñooy dugg di woote won leen jigéen ñi ni ñu jàmbaaree ni ñu toppatoo kër yi di des fois affaire yi di méttee di dëgër te ñoom ñooy supporter lépp ba tax na nag tey jii yi ma fi teg yëpp nag góor góor ñeeg jigéen ñëpp woote waaye man jigéen ñi laa ko yéene kon nag ba tey am nga possibilité boo duggee léegi 88 628 99 90 ñu jox la ci piis yu baax yi nga am loo yóbbu léegi daal di koy dagg booleel la ci loo xam ne moom ngay fayee ñaw xam nga loolu neex na ba noppi itam may la enveloppe yamuñu ci jox la li nga xam ne moom lay àndal xam ne moom moo di xaru tabaski aussi ah, dañu koy joxe yooyu yëpp dañ koy maye tey jii boo wootee ah, ci numéro yi affiché au bas de votre écran 88 628 76 76 numéro bi yomb na 88 628 76 76 wala boog 88 628 22 22 numéro boobu miin ngeen ko 88 628 65 65 wala rek nga woote ci vingt 88 628 22 22 moom laa leen wax léegi ngeen mën a am ci yu baax yi parure or bi nag xam nga jigéen bu nekk nag euh, sañse li koy mottali moo di or rek te parure baa ngi nii di tege am na jaaro baaraam ensemble la boo xamante ne nii bu am maanaa la te or la euh, boo wootee rek euh, mën a bokk ci li nga xam ne moom moo di tirage bi ndax ku woote rek dinañ la jox léegi lu duun itam du tere dañ lay boolewaale ci li nga xam ne moom moo di euh, tirage bi ñu fas yéene amal laataa tabaski du euh, ñëw kon nag spécial waajal tabaski la wax apulaay mu mel ne am na keneen ku nekk ci ligne ligne bee saturé fi mu ne ayu tam ak fi réew mi toll allo allo apu waaw waaw pour mu dugg day metti <laughs> allo allo allo waa ñu àggali ba tey rek allo ba woote leen basin bi apu bu dee am na keneen amul keneen ku nekk ci ligne bi woote leen léegi ma may leen enveloppe xaalis may leen soble may la bi pombiteer may la diwlin may la piis may la or xanaa loolu neex na <laughs> li xale yi naan xanaa lii neex na ñu jël ki nekk ci ligne bi apulaay wala ba tey rek dafa saturé allo waaw mu ngi nii de loo yaa ngi nii de waajal tabaski spécial bon wu cinquante mille bon wu cent mille bon wu vingt cinq mille lépp a ngi fi boo wootee léegi rek ci numéro bii rek ñu daal di la koy mën a jox xam nga ne loolu neex na dëkk bi métti na dëgër na dëgër goo xamante ne euh, boo wootee rek ñu daal di mën a jàppale ci li nga xam ne moo jëm ci sa waajtaayu euh, tabaski euh, spécial parure or baa ngi fi bu leen fàtte également même bu émission bi jeexee gis ngeen parure bi ay jaaro nopp ngi ci bracelet ngi ci ak nga xam ne moom moo di ba jaaro baaraam kon parure boo xam ne dafa complet la mat sëkk moom lañ lay may ci woote ci 88 628 04 05 loolu itam beneen euh, numéro la 88 628 vingt 22 boobu tamit numéro la boo xam ne mun nga ci woote 628 99 90 numéro bi affiché ba tey loolu yëpp dalay permettre nga am li nga xam ne moom moo di ci cadeau yi la jagleel ngir spécial waajal tabaski apu en attendant beneen téléspectateur di dugg ñu may leen rek beneen vidéo nee naa la dañ lay neexalal sa ngoon ba noppi itam may la li lay gunge ci tabaski bi te loolu yëpp fii lay xewee wooteel numéro yi léegi léegi lay doon Bye. maa ba mi ngi noonu euh, Demba Gisee nga xam ne nag euh, ndaanaan la moom itam moo tàmbalee woon dem fi nga xam ne moom moo di Bamako def fa concours bu rëy ba euh, di artist bu mag boo xam ne originalité la am di woy ci alpulaar di woy tam ci wolof muy naan bu mag moom Demba Guissé ñu ngi koy nuyu di ko sargal suñu rakk jooju euh, Demba Guissé moom ngeen doon seetaan à l'instant nee na moom warutul bës warul leneen day def tepp tepp moo gën yureet kon àddunaa ngi noonu ku nekk ni ngay gisee Demba Guissé moom ngeen doon xool à l'instant ba tey mbokk yi ngeen ñëw ci li nga xam ne moo di waajal euh, tabaski gaaw leen woote ndax li ñu dese ci waxtu bëriwul te bëgguñu leen delluwaat dañ leen a bëgg a may lépp moo tax ñu bëgg ngeen yëkkati seen ay léegi léegi mën a am ci yi nga xam ne ah, moom la ñuy ah, mayee di ci nuyu nag suñu xarit yoo xam ne ñu ngi ñuy bégalee fu ne ah Binette madame Ndaw ñu ngi ñuy seetaan moom itam ñu ngi koy bégee bu baax waaye di bégee nag ah, soxna su borom makarimul axla muy sëñ Abdou Karim suñu kilifa boobu mu di soxna Faat Buntu Puy ak itam ki nga xam ne rek moom moo di yaay soxna astu seen ma nga xam ne ma nga fa tey jii ca ngan nga kon ñu leen di nuyu di leen sargal di sàkku bu baax baax a baax ci euh, ñoom ñooñu le euh, ñu continuer ba tey app jël beneen téléspectateur bu nekk en ligne allo allo allo dem na ah ligne bee saturé nag dëgg neexul allo waaw soxna si na def noo tudd ak foo ñuy woowee waaw tur la noo tudd chéri waaw allo ñu ngi lay dégg noo tudd naka kumba foo ñuy woowee waaw kumba sekk waaye sa sant bi dafa neex sama yaay sekk la sant fooy wootee Louga Louga ana waa Louga nu ngeen def ak tàngaay bi mbaa yaa ngi waajal tabaski gi insha ma ana ñaw bi pare na ba nga denc ko <laughs> kenn du nangu sa ñaw pare lii <laughs> léegi nag ñaw bi pareegul xar mi nag moom yeewe na ba pare. waaw xar mi moom yaakaar <laughs> ci yaakaar nga toll kumba <laughs> léegi wuy ma. loo bëgg ma may la. ma jox la tuuti ah. luñ la jox baax na. waa jeex na kon may naa la tissu sant yàlla boutique boole la ci enveloppe vingt cinq mille xanaa lii neex na neex na torop ñi ngi nuyu waa Louga di leen jaajëfal di leen wax ne télévision Futurs Médias ak groupe bi yëpp la fi nekkal bëgg a neexal seen tabaski moo tax nag euh, bul coupé ñu jël sa numéro ci suuf daal di lay jagleel moom gañe na li nga xam ne moom moo di tissu gañe également li nga xam ne moom moo di enveloppe juróomi junni continuer leen di woote même nu émission bi jeexee euh, fii ba ñuy jub euh, jëm ci li nga xam ne moom moo di tabaski à chaque fois boo wootee dinañ mën a enregistrer sa numéro boole ci tirage bu am maanaa bi nga xamante ne 1 la pariru or waaye itam dañuy joxe xaru tabaski di joxe soble joxe euh, li nga xam ne moo di pommiteer ak lépp luy àndandoo euh, ci li nga xam ne moom moo di tabaski bi euh, bu ñu ko fàtte woote leen léegi rek mën a am ci yi waaye nag boo amul ci looy yi tamit dinañ la jox lu duun léegi nii bu ko defee nga mën a waaj jëm ci li nga xam ne moo di tirage bu mag a mag bi goroloo bi nga xam ne 1 million la waaye tey boo wootee basin yi maa ngi nii malheureusement bëgg a dem nag te bëggoon naa ko fee maye xam nga lii dafa am maanaa verre bi rek ak giri bi <laughs> sant yàlla boutique ñoo def lii ah seen numéro téléphone di 77 906 28 95 ngeen mën a am ci tissu yi perlage am na tissu yi am maanaa yi ak li nga xam ne moom moo di parure or bi mais également ay enveloppe vingt cinq mille francs ana beneen téléspectateur bi laataa may dem ma maye yi duma ma ci yóbbuwaat dara yéen laa koy may jël leen téléphone yi woote allo allo allo salaamaaleykum allo allo dem na ah, ñu jégalu bu baax nag ligne bee saturé nax naa leen ko fi réew mi toll la 88 628 65 65 ngeen mën a am am na tam borode bu rafet boo xam ne moo nekk ci suuf rose foucha bi yéene naa leen ko gis nga tissu yi daa bëri bay tuuru bëgguma ko yóbbaale dara laay xaalis bi sax dafa siisu <laughs> ah, bëgg rek may leen ko gis ngeen ko lii bu ko xodee autriche la modèle yu bees boo xam ne doore baa ngi feeñ ci biir bu ko defee nag ah, ñu mun leen koo jox ah Euh, di fàttali rek ne spécial waajal tabaski bi ah euh, xaru tabaski am na ci lépp am na saagu soble yaa ngi fi saagu pombiteex yaa ngi ci pariru or bi je précise que 24 carats la euh, te loolu dafa am maanaa ak un pactole de 1 million de francs CFA ñu fas yéene koo joxe rek jagleel leen ko loolu yëpp pour yéen la amul dara loo xamante ne des na fi ngir accompagner leen rek ngeen waajal dëgmal jël ma ci li nga xam ne moom moo di spécial tabaski bi nga xam ne da nga koy am ci télévision ak groupe Futur Média yépp takk euh, taxaw euh, te woote rek euh, moom moo la koy may ngeen mën a am li nga xam ne moom moo di loo yi bëgguma woon a yóbbaale dara nag dese naa fi enveloppe ana amul kenn ku des pour ñu mën koo joxe bi net madame Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax xaritu Pape Fall maa ngi lay nuyu di la bëggee waajal tabaski spécial apulaay bu amulee kenn ah ligne bee saturé waaw dëgg la nag ligne bee saturé ndax ñëpp bëgg a dugg euh, bëgg a gañe ci loo yi nga xamante ne dafa am maanaa lool wax naa leen ko euh, bi ñu tàmbalee ba léegi ay jigéen a fi woote jigéenu jàmbaar yi maa ngi leen nuyu fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi sama xel dem na ci yàlla ndaw mi nga xam ne ma nga ba diwaanu France sama xel dem na ci Titi Zalba ma nekk ca itali waaye sama xel dem na ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi ah, borom euh, ki nga xam ne rek moo di madame Barbosa ah, di koo xam ne mi ngi nekk fii ci Sicap Foire di defar yore soin doyen institut esthétique boo xamante ne euh, bu am maanaa la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, mu tudd Bonita kon maa ngi lay jaajëfal Bonita nga xam ne ay soins yu exceptionnel ngay am boo fa demee ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Seyda moom itamit yaa Seyda euh, mi nga xam ne nag moo ne ci teen yi waaye itam mu ngi nii rek ba tey parure baa ngi nii bugguma ko buggumaa yóbbaale bagage yi gis ngeen brodé yi ni mu def ak bagage yi yëpp woote leen dugg ngir mën a jël li nga xam ne moom moo di ñu leen jagleel am na xarum tabaski am na xaalis bu duun fii wax naa leen ko sànq waajal tabaski spécial sur la télévision Futur Média boo wootee léegi ma may la tissu jox la ko ñawloo xanaa neex na ah yooyu mi ngi noonu ah, tissu yi nag ah, sant yàlla ah, boutique ñoom ñoo koy joxe muy nag boutique bu am maanaa boo xam ne boo fa demee façon pièce bu nekk nga fa fa di nuyu bu baax nag ki ma jox cuub gi muy yaayu kànku caam di Adja Aminata Seck eh, nga xam ne boo fa demee yaakaar naa ne bii moo gën a ñaaw ci cuub yi nga xam ne moom la am maa ngi koy nuyu bu baax yaayu Aminata Seck yaayu eh, kànku caam mi nga xam ne mooy Adja Aminata Seck woola ba nga ñëw mu ne la am ma may la cuub lool dafa neex ci xol yàlla na yàlla eh, wéral ay cëram guddal fanam doomam di jigéenu jàmbaar joo xam ne ma nga ca Amérique def fa lu yàgg waaye dellu siwaat ci réewam mi nag fonk ko lool kon ñu ngi koy nuyu moom it di ko jaajëfal di nuyu jël téléspectateur bi nekk en ligne allo. allo salaamaaleykum na nga def soxna allo. waaw tur la. waa noo tudd ak foo ñuy woowee. naka. ah saturé na allo. ah Louga ngay wootee noo tudd. waa Louga ngay wootee ma ne noo tudd tur bi laa bëgg nga baaxee ma tur bi tur bi waa waaw malheureusement leerul mun nga woote waat Louga lay woote tey nag waa Louga moom dañoo siisu waa Louga ñi ngi nuyu ñi dëkk Louga ñëpp ah di kontaan ci ñoom di leen wax ne nag ah, nii la leen groupe Futurs Médias defal ñoom gis nañu ñu ngi wane seen bopp bu baax ah, woote dugg am tey du tere tam bu émission bi jeexee nga continuer li nga xam ne moom moo di woote bi ngir mën a bokk ci tirage bi nga xam ne moom lañ leen di jagleel tirage bi pactole bu ngande la ndax 1 million de francs CFA la ah, boole kook nag xarum tabaski boole kook pariru or boole kook xaalis lii lañ leen defal kon nag apu yaakaar naa ni dañuy jël beneen téléspectateur en ligne wala ñu continuer rek 628 99 90 la ngir ñu defal leen comme ni ñu koy defee jeudi bu jot waaye comme dañoo dëgmal jëm ci tabaski tey jii ñu ne dañ leen di defal euh, numéro euh, spécial boo xamante ne bii dañ leen di jox ay euh, cadeau gis ngeen ko nag malheureusement yi ma yore woon yëpp jotuma koo maye waaye jot na loo am na loo xam ne day jot a dem mais day continuer ba tey ci numéro yi nga xam ne moom lañ leen jagleel 88 628 76 76 boo wootee sa numéro ba tey du tere di nga mën a bokk ci li nga xam ne moom moo di concours final bi euh, tirage bu mujj bi euh, ñu ngi leen di jaajëfal dernier appel waa ñu jël ko waaw ba tey rek dina am lu ma wàññi ci li ma bëggoon a yóbbu te bëgguma mu dem ndax ñiy seetaan laa ko bëgg a jox allo. alo allo waaw salaamaaleykum soxna si na nga def noo tudd ak fooy wootee kepp na def Fat Fall laa tudd Fat Fall foo ñuy woowee Kébémer ana waa Kébémer ñu ngi fi di la namm rek di la bëggee. raw fuuf nag chéri. di kontaan si yow macha allah. waay kontaan naa chéri jërëjëf. wuy ma yaa ngi tabaski bi. Kébémer ñii fi. ah. Kébémer ñii fi. ñi ngi fi yaa ngi waajal tabaski bi. waa ñi ngi waajal tabaski bi. anamu ñaw bi pare na yépp yem a jënd nga lépp ba pare teg nga. xaalis bi duun na wala. ñaw xale yi moom pare na damay wax dëgg rek mais man pare leegu ma. yow pare leegoo. ak daal yeeg ñoom seen yaa gën a xam. dégg lii damaa bëgg nga defar ba mu baax toj Kébémer wàccee ko ba zéro man yow yaay sama xarit damaa bëgg a wàcce Kébémer. fu ma jaam koy wàccee comme woote nga fii jeex na yow yaa ngi wàcce Kébémer <laughs> léegi ban ma jox la tissu dama lay may naa la benn tissu jasneer moo la gënal wala perlage wala brodé. waa defal jasneer bi rek. waa déggal li xam nga jasneer dafa manqué. waa dafa manqué nag waaye ma aw di daagu naan boo boo demee sant yàlla boutique xam ne lépp dëgg la. waaw waaw foofa manqué wu fa. ah waaw fi mu manqué yëpp ñëpp ñu xalaat ne Getzner dafa manqué rek am na sant yàlla boutique euh, seen numéro téléphone nag mi ngi 77 906 28 95 léegi nag may nañ la benn tissu bul coupé voilà c'est dommage. ñu may ko benn tissu ak enveloppe xaalis donc mbokk yi li moo nekkoon nag spécial waajal tabaski seen loo xam ne dañ leen ko jagleel neexal seen ngoon accompagner la ndax nag bu ne groupe Futurs Médias ne seetu askan bi day def ndamit li nga xam mooy service public dugg ci biir euh, li nga xam ne moom moo di euh, xolu sénégalais yi dugg seen biir kër yi am loo xam ne da koy participer jàppale leen ko ci li nga xam ne moom moo di tabaski bi ndax xam nañ euh, fii dëkk bi toll c'est un réel plaisir présenter leen émission bi defoon cuub nag di remercier bu baax Adja Aminata Seck yaayu Kanku Thiam di ko gërëm bu baax yore boutique boo xam ne ay cuub yu doy waar lay def di remercier toute l'équipe qui m'a accompagné pour émission bii nga xam ne moom lañ doon def léegi ah, di ci jiital Awa ah muy jigéen ju mën góor macha allah ak itam ki nga xam ne moom moo di ah, Pape Fall ndaanaan bi ah xaritu ah, madame Ndaw Binet donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax di remercier également Apoulaye ci réalisation bi équipe bi nga xam ne mooy équipe bu euh, Pape Cissé mi def liggéey bu xarañ bi ci télé bi ñoom itam dig daje euh, beneen jeudi incha allah ak beneen numéro wu li nga xam ne moom moo di seen émission les rendez-vous du jeudi àndi leen artiste ak ndaanaan bu ko defee ñu waxtaanee réew mi waajal jëm ci tabaski yàlla na yàlla def jàmm ci réewum Sénégal di remercier bu baax euh, Bonita ak sama waa ji maam soxna loo borom Atlanta ale ñu euh, leen di bàyyi ak programme télévision Futur Média continuer leen di woote ndax loo yaa ngi fi pour yéen jërë ngeen jëf